jooyee yaayam na ko raam looy jooy mu ne ko yaay bagage yu bëri yaa ko fi indi yaayam na ko déeréet bagage yi diw moomu ko fi indil raam ci la sogal foppa ronkañam toog den ak yaayam continué waxtaanam kon xam ngeen ne kii ko amoon yërmande si wayjur la ko bàyyi woon xel ay wayjuram la te déggoon seen ndigal raam bi muy dugg si lambu dem na ba benn instant mu ngi boobu mu ngi école de lutte Mor Faram ñëwagul fii yaayam papaam dañ na ko raam bàyyi lamb c'est parce que lamb dafa métti te coono ba ca ne est-ce que ñun attan nañ ko làmb raam na leen sama yaay tekki teral leen moo ma tax a dugg ci làmb du lenn lu dul teral leen moo ma tax a dugg ci làmb yaa ngi dégg waaye nag bugguma def lenn loo xam ne nii àndu leen ci raam jógee foofu ñëw ba suma kër unité 4 ne ma grand sama yaay de ak papa dañ ne ma naa bàyyi làmb léegi lu ci sa xalaat mu ne ma dama bëgg nga ñëw waxtaanal ma ak ñoom xamal leen na leen ñoom dong ñoo ma tax a dugg ci làmb bésub dimanche ma fekk yaayam papaam ak yaayam ñu ngi toog fii Cambérène 2 boobu papaam mu ngi dundu ma ne ko raam mii rëy maa ngi leen di leeralal na leen bàyyi naa ko xel ci wàllu làmb te magam la am naa yaakaar ne boo leen ko ñaanalee lu mu soxla ci làmb war na ko mën a am yaa ngi dégg papaam ne ma a ah, ñun de dañ ko waxoon na ko mu bàyyi làmb waaye nag kom wax nga lii danañ dégluwaat say kàddu ma ne ko am na ñu toll ni moom entraîné ba woo koŋ waxuñ ne danañ dundee seen ñaq ñu ngi si koñ yi di agressé wala di jaay lu ñuy tere ñu leen di jël di tëj si kaso yi di leen indiwaat seen wayjur yi seen xol di jeex te duñ ci man dara waaye yàlla def na raam bokkul si ñooña moom dafa dafa na ba am dooleem mun a ñaqam la bëgga dundee dundal ci ay wayjuram kon bu na leen damay dugg ci làmb bàyyi leen ko ñaanal ko mu continuer c'est parce que dana ci am dara Eh, ci la ma papaam téye sama loxo ne ma Abdou Aziz maanaam ma bàyyi naa raam daan bés ni tey mu continuer lambam dinaa ko ñaanal ma ak yaayam yéenay ay magam yéen a ngoog raama ngoog bésu keroog la ma yaayam wax lii ma leen di seedeel rek leen ku amoon yéene si yaayam la ku amoon yéene si baayam la ku amoon yéene si ay mbokkandoom la raam ku mu xam rek yéene na la jàmm yéene la salaam yàlla xam na ne dalaam bëri ak ay adversaire am ñëw lu baax lay wax si ñoom lu rafet lay wax si ñoom nee na pour. ñuy waxtaan mu di ma ñuy mbalagante comme ni ma koy tooñee rek ndeysaan ma ne ko booy waa booy la moo tax nga bàyyi làmb yow yaa ngi jóge dynamique bu rafet di ko mbalag di ko tooñ affaire yooyu mu ne ma grand làmb dafa metti làmb dafa metti di ma wax yoo xam ne wax yu tëj ma xam li muy wax dëgg la am na yoo xam kenn mënu koo wax damay wax ay wax yoo xam dafay xam dafay dëgg la comprendre nga ma ne ko li nga wax dëgg la te booy bi li nga wax léegi rek dara taxu ko dem lu dul waajur dimbali ay waajuram at famem moo ko taxoon a nekk famu mu nekk di daan dooleem kenn dégg ko ci yaafuus xale bu am jom man daal li ma koy ñaan yàlla na ko yàlla fal cat seq naag moom tranga boo xamee ni ba ma koy seq ak moom ma sàmba yëgul ma demba yëgul te dafa ne ma grand bu ko wax kenn damaa dem États-Unis ñuy waxtaan après may ñibbi si yëgu ko ma jékki-jékki ñëw fi xaw ma kan la ci famille ñoo fi fii mënut a mu woo ma téléphone ñibbi si naa Sénégal de maa ngi kooku woo ma téléphone ne ma grand Ramdaan moo ma booleeg yow ma ne ko ah ci lan mu ne ma am na lu ma la envoyé xool sa téléphone ma xool sama téléphone booy bi nekk de ak ah, xaalis la ma envoyé ma woo ko téléphone lu ko war raam lii nag mu ne man sama grand da ngaa baax sunu mag nga ñun ñëpp comprendre koo gis lu baax nga ñu wax yéen ñu lu baax sunu grand nga waaw ba ngay dem yëguma ko moo tax man maa la yónnee man dama laa war a jox ndax man suma mag nga ma ne ko yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla musal cat yàlla na la yàlla musal ci làmmiñ yàlla na la yàlla musal cat cat su rayul semmal cat su rayul semmal yàlla na ko yàlla xaare àjjana maa ngi koy jaale tamit waa axlu làmb gépp gépp gépp di ko jaale waa géejawaay gépp ndax xam nga ni raam avant muy ñibbisi si goxam ndax làmb gox fa nekkoon ikri mor fadam fa nekkoon doon ànd euh, kii nu mu tudd Mandela Mandela ñoo ngi koy jaale moom la doon àndal ndax Mandela fii la dëkkoon ñoom ko ñu ko doon ànd di ñëw ikiri moot faram di ko jaale waa Géejawaay gépp di ko jaale mbëru Géejawaay ñoom Balla Gaye dëkk ñoom Sakké ñoom Lac de Guiers tout képp kuy ñoom guy gi képp kuy mbër Géejawaay maa la koy jaale ndax raam-raamu ñëpp la woon képp kuy axlu laamu ñoo la koy jaale man daal amul lu may wax lu ko ñaanal ko yàlla lafal ko cat musal ko ci saytaane yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam loolu laa koy ñaan ndax xale la cat nag su rayul semmul njaboot gi mu fi bàyyi yàlla nañ fi yàgg di ko ñaanal magam ji tamit yàlla na fi yàgg di ko ñaanal ndax wax dëgg yàlla ah ñàkk ngeen waaye ñu ne ñàkk nan de xale bu yaru xale bu baax xale bu teey xale bu dal seq na fekk ay nit ñi ma ko ñemee waxee ni am na ñoo xam ni tey billahi wallahi wa taalaay nii lañ ko waroon taxay waxee ko ndax leer na ma ne am na ñu seqal tranga te mosuñoo taxaw duñ ko wax man du ma tricher man damaa dëggu seq naa man tranga te ba may seq ak ma sàmba yëgul ma dem ba yëgul dafa ko dafa na ma grand ko kenn yëg yàlla ko ko a xaar àjjana te ni mu ko defee noonu la ko defalee xam naa samay morom da rëy na rëy goo xam ne mën nañoo taxaw wax ko xañ na waaye man ah wax dëgg yàlla ku ma defal lu baax ma wax moo a marqué si moom. yar ga ak tey Iram yor woon ji koy mbër du yor woon ji mbër yàlla nag lu mu def xam na ko li tax mu teewoon a bàyyi làmb daal di dem yàlla lu mu def xam Iram daan yoru ji koy mbër ndax chaque jour ñëwee mbër day wor te am na ñuy wor am na non am na. am na mbër yoo xam dañuy wor da leen tàggat ba ñuy xale ñu commencé ko di commencé as ñam as tuut yaakaar ne àgg na fekk àgguñu déedéet yàlla ko yàlla xaar àjjana man daal loolu dong laa am ndax wax ji daal jar muy bëri laa ko ñaan yàlla ko yàlla xaare àjjana maa ngi koy jaale ak lu làmb gépp gépp ndax li raam ku ne mën na ko jaale sa bopp mbëri mu ne mën na ko jaale ba di ko jaale sama rakk itam Lamine sekk ndeysaan ndax léeg-léeg mu woo ma daal koy dugal ñu nekk ci ligne bi di waxtaan ma di ko reetaan loo di ko reetaan loo xam nga rek euh, mun naa kaf mun naa ree waaye dama am fulla am fayda kenn du ma yab loolu mi ngi ci man man ku ne xam na ma aw ma fenn furul way falaa dëkk mooy sama gox zoso nii ba muy bëri Alioune Seye lu ne wax naa ko ah te lu lépp man kaf laa ko jëlee xam na sama waay la su jeexee jeex na làmb noonu la dañuy kaf dañuy ree waaye su jeexee jeex na naqar su ñëwee ñun ñëpp ko bokk ndax axlu làmb kenn yéene wut sa morom lu bon jàmm ku nekk jàmm la yéene sa morom man daal li ma koy ñaanal yàlla ko yàlla xaare àjjana yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam waaw wax dëgg yàlla su rakk jaanal loolu daal dañ koy ñaan di ko jaanal ñëpp di ko jaanal ñëpp ñëpp waa parcelle gépp ñoom Modou ñoom euh, nu mu tuddati Papa Sow Garga Deug comprendre nga euh, euh, booy bi nu mu tudd góor a ñoom góor sok xale yëpp at ñi mos a bëral ñëpp maa leen ko koy jaale ndax raam ku ne mun na ko jaal sa morom jërë ngeen jëf. oui maa leen di fay maa ngi sant yàlla. di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi di sant saa waa ji sant sama sëñ sëñ Moussa Nawel euh, di sant mbooloo bi yëpp toog fii di sant samay nawle yi fi nekk sama rax yi fi nekk euh, di sant aussi ay waajuram ay mbokkam moom daan tey lii wane na ne làmb du affaire noonu parce que utu xa dañ ciy wut xaalis rek waaye wax dëgg yàlla duñu ay noonu tey géejawaay moo jur parcelle géejawaay Pikine ñoom ñoo jur parcelle tey ñun ñii sax commune bi ñu nekk ni si si géejawaay lañ bokk parcelle 1 ba 6 commune Golf Sud Golf Sud mooy géejawaay man ma juddoo fii mi kon kenn mu ñu fa génne donc lii nekk loo xamante ne naqar la boo xamante ne euh, foo ko natt romb na foofu foo natt rek romb na foofu ndax Raam dafa décédé xale. Mm-hmm. nekk comme li ngeen wax noon wax ngeen lépp am na ambition bu rëy ci ay. famem bëggoon na waajuram. Mm-hmm. sonn na ci yaayam. Mm-hmm. dégg lu mu moo doon yenu euh, saako bi marché Gueule di ko indi fii te yàlla métti neen man dama doon def loolu sama yaay bi ma amee xar dama doon dem marché Gueule Tapée jël fa ndug jël fa ay ndugg yu ñuy yàqu noonu yenn ko ci saaku yi jëlee ko marché Gueule Tapée ba fii parcelle unité 3 ba ñu ma loolu ma doxoon nga gàtt kon ma gisee ko mel noon bëgg waajuram ñun am lu suñu waajur tey seede yi rafet na léeru li nga wax rafet na trop képp kuy def te defoo ndax ngisal mm. suñu borom na la ko fay waaw te am daan léegi rek maay wax ak ñaa mm-hmm. mu ne ma doon jékki-jékki sax génnee benn un million tas ko ci gars yi xam ne ne gars yi fu mu toll ni seen seen laaf tooy na xam nga loolu dafa jafe te loolu léegi lañ koy soog a yëg mosu ko woote wax fenn waaw ndax parce gis na ne ñi mu doon sekkal mm-hmm. comprendre nga ñooñu moment bi seen loxo jotu seen ginnaaw mm-hmm. kon ñun dañu soxla façon nit yu mel noonu vraiment man su may toog di gis famille Ram sama xol day tooy wallaahi de même que xa doomu ndey Moussa Balla Gaye mhm. mu nekkoon ay xale yu ndaw yoo xamante ne booy judduwuñu te teel a génn àdduna mu nekk lu metti sa waay loo xamante ne suñ borom rek moo ko mën yàlla rek moo ko mën wallaahi lu metti koo xamante dafa ñëw écurie bi dafa egsi rek ah yàlla ubbil ko fi mu am fi ay ndam ah, jël fi gala comme li nga wax réeru war a war a war a dem yéeg ci kaw mu gis ne vraiment euh, war na mën a def leneen lu gën a am doole loolu lu gën a mën a dimbali fayam mu dem def ko ba tey lii fekku tey ñun ñi yëpp def ñu bett man ba léegi yëguma feebar raam fenn dese dem laa yëg mu nekk lu metti lu ma metti wallahi ma duggee ci biir mënu ma xool yaayam yaa ngi dégg metti na daal ba fi metti yem mais dañuy def lu dul ñaanal ko rek lañu ñu mën def xam ne suñu borom bu bëggee ñëppay ñàkk euh, fiñ ko denc sori na torop mhm. waaw vraiment nekk na loo aussi loolu tamit lu metti la mhm. xam nga bu jege woon dinañu gënal torop aussi da ngay dox rek dem ñaanal ko billaay walaay taala mais dañuy def lu dul dañ nañ ñëw ma foo ko ñaanale rek mu yegg foofu noonu vraiment mais en tout cas daal ma lu ma si expliqué lu dul parce que nit bu génnee àdduna bees bees bi nii neex na xam mais bu yàggee mooy problème bi ñi bañ ko fàtte waaw parce que euh, bu génnee àdduna bàyyi fu bàyyi fu bàyyi fu njaboot ah ñi ñu fi nekk bàyyi fu doom leer ñi ñu fi nekk nii rek ñoo ko mën a bàyyi xel am na sama xarit yi génnoon àdduna il vingt ans vingt cinq ans damay jékki-jékki rek ñaanal leen to cheikh bi loolu il faut ñu ci bàyyi xel benn pas dafa ma netti dama toog benn dese ñu nettali benn xisa hmm. ne maire bi da doon toog euh, euh, à pas bi yàlla dafa mayoon dafa may joor yàlla yi dañuy xam li xam ci li nekk ci armeer yi hmm. am na ndaw soo xamante ne dafa toog xéwali wër ko hmm. mu am benn jalu yiw maanaam ñett ñetti xuloo axat bi ñu sànni woon mu nekk jàllu yiw ñu ñi euh, yeneen néew yi daw di ko xëccoo di ci dund ndax xuloo yooyu moo leen dundal mu gis maire bi maire bi demu ca mu toogaat ay ay ay cent mu rombaat gis maire bi beneen jàll yu ñëw mu daw di ko xëccoo mu laaj ko ne ko jamono dama fi romboon eh, jali yiw bi yow bokkoo ci waaw lu tax nga neem di xëccoowaat jaw yi ak ak ñeneen yi mu ne sama njaboot boobu dama nekkoon ku bees genn àdduna waaye léegi fàtte nañ ma maanaam war nga di ñaan bay ñaan say maamaati maam yoo xamul mm-hmm. parce que dañ leen di fàtte te fàtte bi ñu leen di fàtte bu nit rombee ci armée def ñetti xul woo rek mm-hmm. ñetti xuloo yi moo leen dundal te ñaata yoon nga romb ci armée mel ni ku leen gisul mm-hmm. te yàgg-yàgg da dem ci armée yooy noonu yàlla na yéex donc lu jar a bàyyi xel la man li may wax c'est le futur mooy raam lu muy yàgg-yàgg bu ko xel yi fàtte lu muy yàgg-yàgg bu ko xol yi fàtte lu muy yàgg-yàgg jëre nga fàttali njaboot gi di fàttali fay bi ñu koy koon na ñaanal ak képp koo xamante ne génn na àdduna mooy di seen maamaati maamaati maam di leen bàyyi xel loolu ma loolu ak laa leen di ñaax ndax bees bees bi nii neex na metti na nit ñi di daw di di di di ñaan di def mais fàtte bi bu leen ko fàtte bu leen ko fàtte rek mu wér ci bàmmeelam waaw bu leen ko fàtte waaw den hmm. hmm. Hmm. nga tàggat ko bi muy xale lan non li ma marqué moom mooy li ñëpp wax mooy yar raam foo gisee bañ ñi bañ ñi ngay gis mu reetaan ba ma nga xamee ba léegi raam mosuma gis fu mu dama ko ñëw mën na ko yow yaa guy gi da nuroo loolu laa koy tooñ chaque jour mën na ko yow da nga nuroo guy gi moom nag laa lay xoolee wallahi mu nekk gis nga guy gi kenn gënu ko dama ñu seet lu ndaw si moom rek keroog sama papa bu génne àdduna moo fa jiitu gis nga mbëri kenn nuñ si ay noonu barki alxuraan gars yi seen xol dafa rafet te koo ci gis. dafa war a nekk dara moo tax mu nekk mbër mbër c'est pas donné à n'importe qui tey ay champion ñoo fi ñoom mobile gars yi ay champion ñoo fi toog di gërëm nag équipe doo bi yëpp gars yi ci ginnaaw lu ne seq ñu ko seq nañ ko ak ñaa ak ak ak raam yaa ngi dégg kon gars yi li ma leen di ñaaxaat rek mooy ah ñi ñi ñiy bàyyi xel aussi ci santé bi da dem di xool seen yaram yi waaw parce que nekk na loo xamante ne ah feebar yi bett tamit mën na indi yu mel nii waaw ku ci waxtaan temps yi sax dañuy waaj ay journée de sensibilisation pour ñuy dem di di di di di di di teel a prévenir yenn feebar yi waaw métti na nag quoi wax dëgg yàlla dañuy bëgg rek mu gëj fii mhm. yàlla na fi gëj lool dee mënul ñàkk waaye ñi fi nekk ñi fi des mhm. yàlla na suñu borom guddal seen fan lool ba relève bi nga xamante ne bëggoon na ko eggal ci maire bi ñuy des yàlla na ko yàlla def ñoom ñu eggali ko waaw loolu rek laa amoon lu mel ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi leen di fay ah, vraiment di nuyu ñi fi teew yëpp. di jaale waa axlu làmb yëpp yëpp di jaale waa Parcelles Assainies bi ñu nekk di jaale waa famille Ramdaan bi ñu fi dajale di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom xare ci àjjanay firdawsi barke Seydina Mohamed vraiment di ko ñaanal yàlla na yeggalee ndawam àjjana mm, di mosawu képp koo xamante ne ni mbokkam nga wala xamoon nga ko wala lu mu mun a doon parce que mooy li ñëpp wax ku ne mun na koo jaale boppam ah, fii nag li ñu fi dajale tey dafa jar a bàyyi xel. ndax woykat bi day wax naan xaw ma fal la xaw ma nan la xaw ma nan la may dikkee waaye xam naa ne mënut a ñàkk moo tax chaque jour rek àdduna bu ñu si nekkee lu ñu doon doon doon ndaw wala lu ñu doon doon doon mag nañuy fexe di am habitude di laayante biir di waxante lu rafet ndax bis du ñàkk ndaje yu mel nii moo waral am habitude di wax lu baax sa gémmiñ dafa baax parce am na loo xam ne bu jiitu woon ci yow tey doo mën a bokk si ñuy toog fii war a waxaat am na loo xam ne boo woon doo mën a bokk si ñuy fii di waxaat moo tax jour nañuy bàyyi wante xel ci loolu di ko ñaanal bu baax baax baax baax yàlla xare ko nañ tey man mii di wax man la Ramdaan mujje bëreel ci arène man moom laa mujje bëreel bi ma bëree moom ba tey bëriwaatuma man ak moom ñoo bokk benn at buñ tukki bi ma dañuy déggante tout le temps chaque jour dañuy déggante ci yu bëree bare bëree bëri ba démb rek dañoo mujj toog nii may tegaat sama vocal ak moom di ko déglu dañ doon waxtaan lu bëree bëree bëri mu nekkoon nit ku jàmbaare mu nekkoon nit ku xam lu mu bëgg mu nekkoon nit ku amoon vision ci boppam doon nit ci jëmm yomb na waaye nit dafa jafe woon mais moom nit ku nite woon la ku xamoon lu mu bëgg ku xamoon lu koy may ku nekk xam ne na ne ram nekkuloon nit ku bëri dugg-dugg ram nekkuloon mbër comme mobile nga xam ne mun nga ko dégg ci lu nekk wala mun nga ko gis lu nekk nit ku jàppoon ñàmburam la ku toogoon ci ruqam la xëy na nag ku mu ama relation ba ngeen di déggante rek di nga xam ban genre nit la di nga xam ne ku baax la mais boo ko xamul mun nga ko seedeel lu nekk parce que bëriwul woon yenn détails yi kon nit ku mel noonu tey bu fi jógee lu ñu mën rek mooy ñaanal ko suñu borom xare ko àjjana ñaanal ko famille bi ñu ko jëlee xam nañ ne épaule bu am solo jóge na ci waaye suñu borom mi ko fi jëlee dina leen taxaw bu baax a baax a baax te gis nañ ñim bokkal gis nañ ay mbokkam xam nañ ne xaaruñu woon ku nekk Amérique wala kenn ay jàmbaar lañu woon yu nekkoon seen bopp ñun jëflante nañ mu doon ay mbokk ñu doon ay mbokk Rama ngi dëkk Malam Odar man maa ngi dëkk Ndofane Lageen doon ay mbokk teewul bëre nañ waaye musta ñaaw musul ñaaw ba ni mu fi nekkee musul ñaaw message bi ñuy lancé nag ay xaritam lañ koy lancé ñun ñëpp génnewuñ ci kenn mooy xarit du bi muy dund xarit du bi mu feebaree xarit du bi mu dee fi mu ne nii ba nii ku mu neex woote xarit waaye bu baas yi wàccee nag ba mbooloo mi ñibbi ba une semaine ci la ñuy doog a ràññee ñan ñooy xarit ak ñu dul xarit li laay war a suuli bu xarit gi yem ci bi muy dund nañ ko fexee sàmm nañ ko fexee yeggali ci ay waajuram ndax ku ci nekk am na yéene boo amoon ci moom yéene boobu nga amoon ci moom nag bu dee bu fi nekkoon dañ ko ko amoon doonul woon yéene mbébét la woon ko fexee yeggali si ñi mu bokkal ñu ngi siyaare ñëpp waaw xam man moom man naturel noonu laa mel quoi man bu ma lay bu ñuy bëri man ak yow dama lay solal comme man dama ko solaloon ci face à face yi ak affaire yi demee noonu xam nga ba suñu combat sax am na benn booyam boo xam ne coowoon nañ ci ba mu jëlee woon ci gaañu gaañu maa ngi koy masoo waale xàmmee ma ko ci mbooloo mi vraiment mu nekkoon adversaire boo xamante ni préparé woon nañ ko mais bëri woon nañ làmb ju neex quoi parce que xam ay mbokk lañ woon parce que signature bi waxtaan mbokk bi feeñ après bëri mënatul woon am quoi mais xam man moom bala gër laa moo tax chaque instant rek mi ngi noonu quoi mais vraiment nit ku baax la nit ku baax jóge na fi ñu ngi koy jaale ak lu làmb yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom xare ko na ñu ngi koy jaale ñi mu nekkoon loolu États-Unis ku ci mel ne Baye seex maa ko koy jaale bu baax boo gisee nag li ma ci wax yëpp ma tudd ci Baye Cheikh mooy dafa am lu ndaw lu ma ci xam si ñoom ñaar am loo xam ne man ak ko ci waxtaan lu bëree bëree bëree bëree bëri di ko jaale ku mel ne Garga Mbossé vraiment ñu nekkoon ay nitam yoo xam ne ñu ngi nekkoon ak moom métti na parce que tey ku ne xam ne ne tukki neex na ñun ndaw ñi bëgg nañ ko mais Ramadane mii ku ne ko woon boo demee Amérique vacance bi la sa waa kër di njëkk a gis si kees lañ lay fekk mun leen baay leen ma toog fii taxu ko woon a jóg li ko yëkkati woon mooy li yëkkati yëpp nag li fi mbooloo mi seede yëpp nag ñaara ci bëri njëriñ yal na ko yàlla xare àjjana mais ku bëggoon ay waajuram la ndax loolu rek la ndaw am gis nga damay wax ne wax lu ñaaw xeeb sa liggéeyu yaay la ndax ñun ñu fi toog nii ku ci nekk war ngaa xam ne sa yaay liggéeyal na la loo xam ne war ngaa am jomba toog ci mbooloom ñu naan waxkat lu ñaaw baa ngi ne suñu yaay yi dañoo daj coono yu ne suñu kër bàyyi suñu papa yi dañoo daj lu ne moo tax lu baax rek lañu war a def buñ ko munta def ñu fexe di ko wax buñ ko munta wax ñu fexe ku ko wax ñu rafetlu ko lii mooy li ñu war ci àdduna ndax dañuy ay doomu gor gis nga ay ndaw lañ te ndam ci ndaw mi ngi nekk koñ bi nga juddoo mun nga cee dox ñeenti sele ba yoon ba mu sës doo dajee mag mu fekkee sa jamonoy yaay ne la sa yaaya bonoon wala sa papa bonoon bu la sa yaay defalee loolu ci gox na nga fexe ba yow boo màggee bu fa def lu ñu koy waxal moom maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu Sénégal yëpp rawatina yéen ñi fi teew ak ñi bëggoon ñëw te ñëwul waaye daal ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp nag teg daanaka wax ji jar muy bari quoi ndax tamit ki fi jogee moom buñ bëgg wax si moom ñu bëgg wax si moom li ñuy wax fii ba ngoon du jeex loo jaar mu nga si bañ jaaral dëgg la ay frère lañ sama rakk la waaw sama rakk la waaye boo ñu gisee doone kii ma nga rakk lañ ndax tellement mel ni ñu yebantee quoi waaw waaye da en tout cas xam naa ne ku baax dem na ku bëgg mbok bëgg ay xaritam dem na ku gëm boppam loo koy mu la boo xoolee boo koy gis mu ñëw danga ngay ay bëñam nga jëkk seet loo ko wax sunu ñaaw wala ndànk lu ko neexu ko da la yow da nga neex da nga neex ngeen ko nga teg si leneen mu romb nga dem yoon dem soo ko fekkee bu demul liggéey entraîné ji wut néegam lay tëdd am pour mu génn sax problème la néegam lay tëdd nekk si connexion bi di mbalakante ay nitam ay am di jamono waaw sutura moom si moom la yem sutura am na ko lool lool man jëkk sëq nag ay nit moom si boobu ay tranga wallahi nit ngoo ma wax ma ne ma am daan démb dafa ma bet xam nga mu fa ne xam nga rek rak moom tax moo koy wax noonu waxu ko ngir ren moom waa ji waaye bu ñu waxtaan maam appel vidéo mu ngi ma ne ko pourtant diw gërëm na la ndax neen da nga ko fekk si mu toll nga yónnee ko lu duun daf ma coupé daf ma coupé coupé woo waa ji ne ko ma juddoo ba le nekk yow ba yaa ma doore lu ma naqari li ma seeq yow ba defal li ma la defal nga tourné di ko wax sama mag tooñ nga ma coupé téléphone bi waa ji mu ngi waan wallahi mu ngi waan ma ne ma noo Youssou heure de ma ne ko noo saa yi mënu la mel daa compliqué moom bëggul kenn xamal ko dara ba ci feebaram bi nii wallaahi li mu tëdd yëpp yëpp yëpp ñu ngi déggante appel vidéo tout mun ma sama feebar bi ñu ko xam bëriwul ñi di ñeneen ñi ko jox xam man akaa ah, mun a wallaahi nasim leer na ma leer yaa duñ ko toog wax ko kenn tudd na si Lamine Seck Lamine mii tudd na ko si ne Lamine xam na dama feebar waaye du ko wax ne dama ne ko bu ko ma anu jàppale ma soxla ma ñu ma jàppale ma États-Unis yàgg naa fi yàggu ma fi waaye li ma liggéey maa ngi ko téye lu ma médecin yi bindal dama koy jaan hôpital mu ne maay fay kon soxlaaguma loolu yàlla mooy yor bakkan liñ mujjee wax lu wax ba dama ko coupé ndax moo yor bakkan la wax bu ma waree dund damay dund su ma waree dee damay dee waaye États-Unis foofu fi faj samp baax xam ngeen ko xamoon na boppam xamoon na ne moom carrément feebar bi mu rëcc mu rëcc du yomb ban bi xamuñu ah moom yaram moo doon métti chaque jour mu ne affaire daal fii lay jàpp la fii lay jàpp waaw waaye sa sonal na ko torom nag waaye am na muñ ba yow mi bokk waxaal moom waxtaan ak moom doo ko yëg boo xamee ne ko sa baat dafa changé quoi dafa dee la pour di la defal xam waaye ñun xamal na suñu bopp ne kii dafa feebar waaye bëggul ñu yëg ko bëggul ñu xam ko mujj gi laaw ne yaay kii mu ma joxati ay vocalam mu ñëw déggul ram tey de baab daa mel ne changé na man ne non bu ma jox vocalam bàyyi la mu sedd ndax boobu man yëgoon naa sama bopp ne xam ne kii moom bisam lay xaar rek mooy li ñu wax yëpp rek lépp rek gëm yàlla la adduna moom yàlla moo fi ne fii mu neex dañuy dem mu naqar dañuy dem te bis bi mu am nii moom wax laa lasi man wax naa ko démb naa leen kii li mu am nii damay ko waaw dëgg la gàttul fan raam gàttul fan ndax ñu bëri naa dafa gàtt fan mën naa a jàpp gàttu fan xale gaa waaye lim am nit dund na ba retraité amul ko nga génn àdduna waxuma la say mbokk yow say jàmbur yàlla yoo xam ne yow si liggéey ngeen xamante milieu boo xam ne milieu dóorante la ah ko li ma a wax leen la moo amoon na sutura te bëggul kenn xaayu suturaam dama dégg keram mu yul de wax am solo moo garga mboose mu ne lépp lu waaye dox si raam nay dëgg waxal loo xam ndax raam am ñu ko xam ñoo xam ñu toog ni tekk kenn waxul xam nga moo tax gis nga àdduna bi nañu rafetal mbir yi fii ñëpp benn lañ ñu ñëpp benn lañ ram bi muy bëreeg mobile 2000 ak ñoom sooq dañ koy digal yu bëri wala la sim démb rek wax naa ko fee dañ koy digal yu bëri sëriñ ko lan mu ne ko pour lan mu ne ko sumba bi du mu ne ko bu la mu ne ko ah, wallaahi rasim du ma da ko def ndax lan bu dee loolu kese pour combat gaal garaaw entraîné na ay morom lañ defal mu loo xam ne daal man ñu ma jàpp si musique wallaahi rasim man toog naa ni mu toog sëriñ toog moo ko loolu sëriñ toog ne waaye kii moom di ko lamb nag man li may def yàlla daa si seet seetuma si nit ñu naan takk fee ngemb tous baar jot man dañuy julli ñu ñëpp ñun xam nga da ngay enu geenu combat moom day topp si kanam mu ne eh, heure bi jot na de ah, ab bàyyam xam taana la moon da koy wéeg foofu bu tous baar jot mu dem jàpp julli mu ngi si dëgg de maa ngi si fenn maa ngi si fenn mu ngi si dëgg xam nga am loo xamante ne jarul wax am fii booy fenn mu ngi mel ne ngay fenn si air bi rek may wax nii mu ngi wax ngelaw la rek xam nga mu war a dem ñu war a julli dem stade mu ne heure bi stade dama fekk du ma du ma temps bi cinq heures bu jotee

fekk ko fi ak final mu waroon bëri dem daan mobile de daan doomu daango dëgg la naa moom kenn xamul fu muy demee ren nu ñaamal rek waaye boo war a jàkkool pambay xanaa du la jaaxal loolu moo tax mu dem am am lu ko yëkkati woon am lu mu moo na moon lii dem na yàlla na ko soo ñëw nii nga ñëwee waaye sant yàlla daal yàlla moom moo ñu wat bu mayee bu neexee sant leen ma mu naqaree sant leen ma waaye léegi mu may ñu muy neex ñuy sant léegi mu ne mu naqari ñuy caalit du am dañ koy nangul ndogal bi xam ne yàlla moo ñu moom ñun ñëpp jël na ram wallaahi di ko ñaanal suñu borom comme li ngeen wax rek cat bañ ko jël si bàmmeelam yàlla yërëm ko en tout cas ku bëggoon ay xaritam la ku bëggoon ay mbokkam la ram mosuma gis fu ram téye saaga nit mosul am pour am teg man un jour ànd nañu làmb boobu du ma benn ba doon bëree effran rouge la sax mu am yenn baat yu mu ko wax si mi dax si mu ne am na lu ko wax mu nee la ko da géew bi la ko joxe géew bi moom nee na sama tontu géew bi la wallaahi ma ñu pare ma ne ko mu ne ma non làmb ku ne da ngay dem noo def naxee sa morom ba merloo ko waaye man Youssou du ma faywanteeg mbër wallaahi nasim waaye wallaahi toog nañ mu ne ma gars yi ma bëri lii bu leen neexoon nañu bëri man ndax ñoo ma jekk si làmb ñu si bëri kon nag yàlla demal na ba ma bëri ñoom sant yàlla daan naa leen mënu ma le yàlla mu ànd ak man waaye làmb raam daal làmb moom lu mi sama waroon def la rek def na ko ci làmb li waaye sama papa wax na ko léegi sama tontu wax ne làmb du bon làmb lu bon de liggéey la tey ñaata mbëree fii bëri rayante fante lu ne te suba ñu ànd moo daal li ma mën a la ram ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla yërëm ko te yéen itam nag yéen yéen a baax rek de ndax bu leen neexoon ngeen ñëw teg wala bu ne ah, seen kër waaye ñi ànd nañ ak ba aéroport ñi ànd nañ moom ba dëkkam yéen a ngi ñëw bàyyi seen yitte ñëwaat toogaat fii ko seedal bu leen neexoon ngeen mën si fekk xam nga affaire moom affaire moom man daal waaw man daal li ma wax leen la ñun daal sant nañ leen gërëm nañ leen li sos wax moom boo faatoo wax na dëgg boo faatoo amul ku soxla ñaan ñaan du doy waaw di leen ñaanal suñu borom itam yàlla na yàlla may leen fan bu gudd may rafet na ba pare gën a rafet si kàttanu yàlla waaw mbër ñu leen di gërëm di ko jaal ndax raa moom raa bu ñëpp la ñëpp a ñàkk ñëpp moom de ñàkk nañ de waaye man ay ponkali góor wallaay woo nañ ma téléphone dañ ma woo mënuñ alo alo mënuñ ko wax dañ ma woo di jooy jooy xamante moom ni lii la julli madam morom ko yàlla suñu borom day fay loolu yàlla na yàlla fay mooy tam yàlla na ko yàlla gërëm xam nga ñu ngi koy jaale ñoom nag waa dóor dóoraat rawatina waa dóor dóoraat ñoom ñoom ay moroom morom lañ bëggante nañ wóoluante nañ soppante nañ amaan tukki moo nekk loo xam ne mooy loolu surtout Garga Mbossé nag moom dafa dem États-Unis ram affaire yi dal ko Garga Mbossé yëg na lépp mu ànd ak moom di ko tette wallaay ba démb si guddi bu may wa bu may awa téléphone maa ngi nalaw bàyyi seex du ma woo sa WhatsApp appel WhatsApp direct la may woo pour jot moo tax ñooñu ay nitu kese lañ en tout cas daal en tout cas daal gars yi yëpp baax man man mënu wax si baaxaayu kenn ndax lañ ma gis si gars yi dafa rab man dama ne lii xalaatu bara amu ko daam amu ko dem dëkk bi noonu liggéey kër gi noonu liggéey Dakar mu dëkk fa laa nekk xam naa gars yi bu baax ñu duñ bàyyi xoolal Ousmane rek ba mu xëyee démb la fi ñëw nekk si base bi moo ko taxawal moo boy mu xëyee fajar ñëwaat mu ngi si waañ xam nga ak ñi yeneen ni ñeneen ñoo xam ne ay ñoom Babacar ñoom Angale ah ñaa nu ma lim daal soo limee dañuy jum parcelle de droit yëpp am na xatam yoo xam ne ñu ngi fii ay ñoom boole ay ñoom boole ay kum laawu xam nga bàyyi lépp ànd ak moom gunge ko en tout cas te loolu raam du leen ko fay ñoom ñoom ñoom ñoom raam du leen ko fay xam nga moo am na si loo xamante ni baax rek am solo tey soo ma noon may xaalis chaque jour nga ne man su ma la gisee du ma mën a jàmmalante yow waaye soo mën a yar fu ma romb nuyu ma ma nuyu la man cofeel boobu lañ soxla leneen nit mënul jox nit loo xamante ni yàlla joxe kooku waaye il faut ñu bëggante respecté te loolu man de wax dëgg yàlla mbër yëpp amuma ñoom xaarmal géej waaye su ma jaaree géej gi di entraîné billaahi wallaahi taala mbër yi ku ma gis day foo ne da nga xamante naa moom te yàlla gëm na xamante wuñ dañuy taxaw nu ñu ànd jàll xam nga moo tax nag adduna daal amul solo lii daal moo fi am na yàlla fay leen ñi ngi jàll ñëpp nag baay wuñ kenn waaw bàyyiwuñ kenn wax am na si lu ma wax démb si Fallou Ndiaye si ikéem bi taa waxee ma ko pour leen seede dafa am solo nit boo ko defalee boo ko defalee da nga koy wax sama rak la moom juddoo ba léegi maamu ñoo nekk nëbbam mosuñ mosuñ dóorante ko maag moom danañ gën a si kër nga naan ñii di raaga di waxtaan di xoloo moom Moussa Balla Gaye nañ ma naan kaañoo sax xam nga damaa naan jox ma xool ko Moussa dafa mën a rus waaye am su yoo xamante ne amul solo aduna garaawul nañ ñaan da jàmm yàlla yàlla defal jàmm Fallou moom dañ koy sant bu baax di ko gën anu tax Fallou Ndiaye yu moo ko man Fallou Ndiaye laa njëkk a si promoteur Fallou Ndiaye dama raam wax ne ma kii Youssou ma ne ko billaay sama combat bu ko tëggul kenn du ko tëgg am na yeneen promoteur yu ko war mu gore trop si Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye fii dana la ñëw gaar otom fee mu ne ma Fallou Ndiaye la si laa xam Fallou Ndiaye ah moo tax affaire yi ñu ngi koy ñaanal jaam moom si boobu di ko jaar raam ndax bi raam doonul dara kenn xamu ko